إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها may gi ñu may ñu fekkee xew-xew bi eh, ren muy am ñaar fukki at ak ñeent muy xew-xew boo xam ni at mu jot ñu def ko fii ci diwaanu Thiès mënuñ ko defee Dakar wala ñu defee ko feneen ci capitale sous région bi waaye eh, bëgguñ bëgg Thiès ak fonk guñ fonk Thiès ak Thiès jàngal gi ñu jàngal alxuraan moo tax ñu taamu cees di fi defal alxuraan bis yu rëy yii eh, tàmbale woon ko 1993 eh, doon ko def concours région concours national bi ñu ko defee fukki at na gis jublu gi ci nit ñu jublu ak bëgguñ ko bëgg ñu mujj ko yaatal def ko concours sous régional di ci woo yenn réew yi nga xam ñu ngi jógee ci Afrique de l'Ouest ñëw di ànd ñun ci xew-xew bi muy concours boo xam ne dañ ci jublu mooy ñooñ daara xamante ñooñ daara gën a jàppante ñooñ daara gën a gindikonte ñooñ daara gën a xam ne ñoo yor li gën mooy alquran karim ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax ne xayrukum man ta'allama alquran wa allamahu ki gën ci jaam yi wala ki gën ci mbindeef yi mooy ki jàng alquran pare di ko jàngale kon ki baax na ki koy jàngale baax na kon nag eh, mu mel noonu ni dañu ne ginnaawaloon ba ñu mën ni ñu xaw a suufee seen bopp ndax ñàkk xam seen bopp te xam sa bopp bi dafa bokk ci jaamu yàlla ndax yàlla sa dane ba ma xamul bu ma jaamu man suñu borom subhanahu wa moo tax nag ñun ñu doon euh, fekk ndongo daara yi seen daara dina xamal ne li yéen li ngeen yor moo gën li ngeen yor lu jëre wane la li ngeen yor lu jëre fësal la moo tax euh, gis ngeen ñetti at yi wala ñeenti at yi euh, fu nekk concours nga fay am ci biir senegal di wane ni kon ñun ñu doon def lu baax la mooy li ñu mooy alxuraan fis alxuraan am doole daara fis daara am doole ba gis ngeen sax ay sociétés yu ciy def ay centaine de millions ngir jaare ji pour mën a jaay seen marchandise euh, lu baax la ndax comme xam nañu alxuraan mooy doole ji rek ba ñu jaar ci alxuraan ngir mën a def wane wane seen marchandise loolu loolu rek ñu ci woon mooy nit ñi xam ne ñooñu alxuraan ñoo gën ci nit ñi ñooñu alxuraan ñoo yor li gën ñooñu alxuraan ñoo war a gën ñëpp te ñoo firi ñëpp kaw ndax nit koo xam ni bu doom juddoo yaay tudd bu néew dee deewee yaay jullee bu nit jaaxlee ci ci feebaram yaay léemu kon kooku moo la gën fii moo la gën fa nga jëm ndax buñu nee ba tëralum néew kenn doon ni ana médecin bi kenn doon ni ana papaam kenn doon ana yaayam ana sëñ bi la ñuy wax ana imam kon nag dafa jot ci ñun daara ñu xam seen bopp xam niñ yor xam niñ yàlla defal loolu moo taxoon ñu def concours bi sant nañ yàlla euh, ren am nañ ñaar fukki édition ak ñeent daara yu bëri teew ci kuréel yu bëri teew ci ñu jagleeloon ko sëñ Massamba Mbacke bi nga xam ni <clears throat> rakk la woon Sëñ Tuubaa déggal ko lool nangul ko lool sopp ko lool bëgg ko lool daan sonn aussi ci li gënoon a ñor Sëriñ Tuubaa mooy xasaayidu Sëriñ Tuubaa yi ndax xasaayidu Sëriñ Tuubaa moo tax nit ñi xam Sëriñ ndax Sëriñ ci la bind li ko ñor yëpp ci la bind fi mu jaar fépp ci la bind li ko yàlla defal lépp ci la bind li ko ñor ci digganteem ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam te xasaayidu Sëriñ Tuubaa ci làkku arab lañ ko bind te làkku arab mooy làkku mooy langu ajjana ndax yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dafa ni li tax ma bëgg arab ñett la ndax man yonent ñi ndax man la yàlla gën a leen ñëpp may may dañ ne ajjana arab lañ fay làkk te ala alxuraanu karim bi gën ci téere yi ci langue arab lañ ko bind kon nag dafa jot jullit yi xam seen position xam seen taxawaay xam seen nekk nekkiwaay boo mën a yëkkati seen bopp taxaw buñ bañ a jëlee fenn lenn te xam ne li ñu yor moo gën fii moo gën fa njëm waa xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko suñu borom tagg dafa ne ko way naka la ala xuluqin azim nee nga ko yàggun juddu nee nga ko yàggun yaa ëpp xaalis nee nga ko sa baay fi ëpp xaalis nee nga ko yaa fi dàq jàng dafa ne ko jikko yu gën a tedd moom nga yor te euh, sayyidatuna Aïcha bi ñu ko laajee lan moo doon jikko yonent bi dafa ne kaana xuluquhu alquran dafa ne jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy alquran karim kon alquran mooy mooy valeur lu dul alquran rek dérive la lu dul fi indi la lu ñu sos la te kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala lépp lu ñu sos bidaa la te bidaa bu nekk daf lay gind ci daf lay jubale ci réer te réer moom moo lay jubale ci ci ci violence moo lay jubale ci tooñ moo lay jubale ci sàcc moo lay jubale ci nekk fàqamaan moo lay jubale ci naafeq moo lay jubale ci ci yu mel noonu alxuraan nag léppam lu baax la léppam lu sell la léppam lu jëmale nit ci ci ci tedda nga àddina ak tedda nga alaxira ak jëflante yu baax fii ak féex ëllëg fañ jëm mooy fañ jëm mooy lan mooy ne ko Mawlaana Cheikh Mahamadul Murtada Mbacké daan waxee ne nañ góorgóorlu ci ndigal suñu borom yi te moytu ay tereem ndax mooy tax feeñ jëm bu ñu fa demee féex fa noppalu fa. Euh, partir de l'OUA à Médine il a envoyé quelqu'un qui s'appelle euh, Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr est un jeune qui est des compagnes de prophète. Quand il est allé à euh, Médine, à là-bas, il a enseigné le Coran. Après son enseigné le Coran, comme le prophète à partir à Médine et aussi il a construit l'État islamique à Médine. Et donc euh, le prophète dit que euh, c'est Coran qui ouvre euh, pour nous la Madine. C'est-à-dire qu'avec diplomatie coranique, le prophète a commencé l'islam par enseigner le Coran. Mais malheureusement, les musulmans, on a le Coran dans les relations politiques dans le monde islamique. Si le Coran remplace beaucoup de choses, Eh, il supprime tous les mauvais qu'il y en a maintenant dans notre monde islamique, surtout le terrorisme qui, eh, avec le nom de l'islam, eh, cest à fait beaucoup de mal dans le, monde islamique. Je vous en prie. waaw euh, nan ngeen tànnee xale yi nga xam ne tey jii ñoom lañ doon jox raaye yi ci concours Alxuraan Euh, maanaam concours bi dañ ko ubbi woon dañ ko ubbee nag léegi ay catégories yu différent la la woon amoon na mokkal kaamil bi yëpp muy baqara banaas yi amoon na tamit mokkal mariam banaas yi amoon na tamit mokkal yaasin ba yaasin ba suuf léegi catégorie bu nekkee nag dañ leen dañ ci jël dañ ciy tànn ñi nga xam ñoom moo ci raw waaye nag natt gi leen doon natt nag maanaam bi leen évaluer leen évaluer ci mokkal bi ak tamit ci njànginu alquran yi nga xam ne ni mooy njàngin yi wér ak tamit eh, eh, maanaam jekku gu nga xam te ne xale bi daf koy jekku alquran ña ba ban koy jàng njàng moo xam ne day mucc ayib mm-hmm. uh, ndax ngeen fi yëpp maanaam satisfaire nañ leen waaw ah, ah, noon xaar ci ñoom gis ngeen ko waaw maanaam alhamdulilah parce que concours bi amoon na amoon na niveau amoon na niveau macha allah soo xoolee vraiment wax dëgg yàlla xale yi nga xam te ñoo lañ fi doon interviewé ñoo ñoo lañ ñoo lañ fi doon càmbar wax dëgg yàlla am am nañ am nañ ci ñoom satisfaction bu baax a baax a baax a baax jazakumullahu xayran